sama gars yi gars yi seen bii seen bu bees la ban ko ubbee yàggul ñi ngi ñaan kuy gan ci pass bi nga abonné partage yokku ñu doole gars yi joueur bii nga xamante ni moo di Pape Alassane Gueye international sénégalais équipe bii nga xamante ni moo di FC Séville pare na pour jënd ko ci Marseille parce que waa Marseille moo ko aaloon FC Séville andu woon ak benn option nag waa Marseille dañ leen ko aaloon noonu rek bu saison bi jeexee ñu delloo leen ko mais équipe bi nga xamante ni moo di Séville noppi na ngir jox Marseille dix millions de euros ngir jënd Pape Alassane Gueye parce que Pape Alassane Gueye mii ñaari match dong la footballagun FC Séville te ma ngay wane boppam kon Pape Alassane Gueye mii ñu koy ñaanal jaroo yi nga xamante koy def ci mu wéy parce que xale la boo xamante am na avenir te équipe nationale Sénégal yaakaar na ko bu baax a baax gars yi équipe moo di Paris seen supporters yi tey jii nii nouvelle bu neex lan àndal parce que kii nga xamante ni moo di Messi a Kylian Mbappé ñi boole blessé woon ñoom ñaar ñëpp ñëwaat nan ñoom ñaar ñëpp ñoo entraînement tey entraînement collectif entraînement entraînement ba entraînement bi jeex kon nouvelle bu neex la parisien yi am tey seen list sax génn na Messi ak Mbappé yi gars yi doon xalaat nan ci bokk ak duñ ci bokk ñoom ñaar ñëpp bokk ci liste bi kon mën naa ni pari tey jii nouvelle bu neex lan yendool Paris googu nag seen ñoom seen équipe bi bu fa Mbappé manqué wala Messi manqué fa wala Neymar manqué fa Paris day am problème kon Paris gi war nañoo gëral liggéeyaat defaraat seen équipe bi parce que ñoom seen équipe bi benn joueur rek bu fa manqué da ciy feeñ parce que Mbappé nekk na joueur boo xamante nii bu manqué pari rek pari da koy yëg bu baax a baax Messi ak Neymar sax dese naa garaaw mais Mbappé moo nekk joueur boo xamante ni nii bu manqué pari rek force Paris yëg ko gars yi président royal bi moom nee na bu saison bi jeexee noppi na ngir teg ci taabal ji trois cent cinquante millions d'euros ngir jënd ay joueurs yu bees tàq renforcer doole équipe parce que gis na ni équipe bii nga xamante ni moo di Real Madrid joueur fa nekk commencé na noo jëm mag moo tax noppi na ngir def loolu gars yi ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné partager